ñëw tuuti ci benn cas boo xamante ne. kaawu mhm. Dieyna Baldé. Mhm. Bril Faye foo. Mhm. xale bu jigéen bi amoon na fi benn problème bu ci mel ne ak Diop Iseg. ñu naan noo xale la et cetera leen ak ba actuellement tamit tey beneen ñëwaat tamit ak beneen ñëwaat diggante moom ak ki ne mooy Bril Faye foo. xam nga actuellement problème boobu noonu fa en tant que jigéen tey ngay wax ci loolu. Euh, li may naan li may wax Biril mhm. am na loo xam ne moom tamit waru ko di def parce que mag la dafa am fukk sénégalais si teg. mais est-ce que tamit Dieyna Baldé am na loo xam ne est-ce que na ko def moom ay mbokkam lay wax. Mhm. xale boo tollee fenn fii. Mhm. da koy téye rawatina nag am na problème. ak ki nga xam ne muy jóg ISEC. dañ ko waroon récupérer xam ne xale la. xamul daal ñu teg ko ci yoon. yaa ngi comprendre erreur mënta ñàkk mais bu demee ba def ñaar nag Sénégal xamul ñaari erreur. benn erreur lañu xam. surtout. bu Diop ISEC bi mu amee. Mhm. ñoom ñëpp li ñuy wax dafa leer. Mhm. erreur la xale la affaire yooyu noonu ñu ne ok. Mhm. bi liy ñëwee tamit ah man boobu bu doon man. damay dem toog samay mbokk. su ma amee sama tournage dem jouer. bu ma amalee ma toog fi ma war a toog. après mu jeex. yaa comprendre. mais bu toll loolu tamit euh, capacité may na ko yor li nga xamante ne mooy appartement dëkk ci moom kese. man de man mii may wax ma dama yor appartement. mën naa ko yor am na ku ma ko mën a fayal. mais duma ko jël. duma ko jël. lan moo parce que ñun jigéen ñi dañoo weex donc ñun sër bu weex lañu lu gaaw tas suñu dafa dafa gaaw. a fay sa appartement fa. yeex lu ëpp sax appartement. kooku dama fi toog di ko wax. surprise moo dàkk <laughs> en man boobu duma ko jël. wala su ma koy jël aussi day am samay mbokk yoo xam ne dañu ñëw nekk ak man dëkk ak man. Mm-hmm. yaa comprendre. ok mais est-ce que appartement tamit tax bon jël jël sa appartement ci nit ñi. ok sans ci nit ñi. Mm-hmm. nit mën na jël appartement mu bon. Mhm. nit mën na jël appartement. baax mhm. mais ñi la fay gis. Mhm. bu ñu gisee sa benn copain dugg sa ñu ne i fii de moom kese moo fi dëkk. ñi xamul dañuy naan jigéen bu bon la. te Sénégal léegi boo rombee dem rek boo rombee kenn di dem. loo mën a sol ak noo mën a mel dañuy naan moo kii de dafa bon xool leen lu mu sol. te pourtant au fonds xamoo sax kooku mooy kan. moo tax ñu bari jamono bu ñu toll dañoo ragal a jël appartement. parce que bu ñu jëlee appartement dañuy dégg yenn wax yu vulgaire yi. wax yoo xam ne mooy loolu. ba tax na jigéen ñu bari nangatuñoo jël appartement. Mm-hmm. lan ngay xaar ci jël appartement bi yow. nga ni lan ngay xaar pour jël appartement. damay xaar am jëkkër maag sama jëkkër ñu nekk suñu appartement. Mm-hmm. waaw. tey si côté cas Dieyna Baldé ba léegi la ñuy desandi dem ba léegi ba yan conseil nga boo xamante ni yi ngay jox ki nga xamante mooy Dieyna yan conseil nga koy conseil Dieyna daal li ma koy wax c'est très facile artiste la bu mag ñëpp xam nañ ko ci réseau sociaux yi macha allah mu nekk koo xam ne jàmbaar la ci liggéey bi mm-hmm. li ma koy wax mooy que problème bi bu ko yàlla dimbalee ba mu génn ci ci jàmm ak salaam mm-hmm. na dem toog ci wetu yaayam ak papam xam ne xale la mm-hmm. te moom xale ñàkkul dara mu ngi a dugg ci àdduna na dem toog foofu noonu boo amee tournage mu dem tourner su amul tournage mu toog foofu noonu. téléphone chantage téléphone parce que yéen xale jigéen ñi bari na seen côté da ngeen di chantage xale yu góor yi léegi yor ay vidéo xale yu góor defal ma lii wala ma ma ma comme Adamo mu ngi jo ma jox ko Adamo. <laughs> non man moom duma chantage góor. Mm-hmm. parce que je suis comme ça. en mm-hmm. fait samay famille aussi yarew ñu ma loolu. Mm-hmm. Euh, cadre boobu man loolu dara wóoru ma si de un parce que damay dégg wax yi xam nga gars moom ku nekk la neex ngay wax mais au fond boo déglu après di nga dégg. Hmm. loolu moom wax dëgg yàlla moom dara wóoru ma ci quoi. dara wóoru la parce que xaw ma ko xaw ma ko en tout cas Dieyna Baldé laa xam moom laa war a a jox ko. dëgg la quelque an non dégg naa rythme bi dégg naa coow li. Hmm. voilà mais wax dëgg yàlla moom su ma waxee sama diggante xam nga tu sais man du ma wax loo xam ne wóoru ma wax tamit. wax ni dégg ma tamit taxul man ma juger nit ki. Mhm. il faut que ma dem ba teg sama bët bi mhm. yaay comprendre mhm. ubbi sama nopp dégg mu génn ci gémmuñam man mën koo dégg ci laay doog a xam li may def waaw dafa mel da nga rafet léegi de. Hmm? da nga piqué léegi non du question loolu piqué ñëw ma samay cër mais dama bëgg lu leer rek. dama bëgg lu leer non non bëgguma dugg ci détail boo xam ne xaw ma si dara. dëgg wala ma wax ci loo xam ne lii ay fen la wala li may xalaat rek ma wax non man yooyu xaw ma ko. xaw ma yooyu. dëgg la buy dëgg dina feeñ bu dee fen aussi dina feeñ dina feeñ daal dëgg la xale jigéen ñi def loolu ban conseil nga leen di jox jël ay vidéo xale yu góor di leen santage seen choix la amoo benn conseil ba leen xëy na seen liggéey la ñun jigéen dañoo xaw a dëgër bopp <laughs> moo tax it chaque jour ñu gis résultat bu bees te duñ ci man dara mais am nga conseil ba leen war a jox conseil ma leen di jox mooy ko ñu xam seen bopp xam seen valeur xam ñoom ñooy kan mm-hmm. yaa ngi comprendre xam góor gi ñuy nekkal parfois góor day ñëw si yow naan la bëgg naa def ci yow ba mu doyal fekk ne mosulaa bëgg ay vidéo la soxla ci yow wa ilaa tëddee la yaa ngi comprendre mm-hmm. yow mi nekk nit nag yaay bañ xam sa valeur xam nga boo xamee sa valeur nag li nga xam fooy teg sa tànk. liggéey baa ngi noonu xale benn bi ñuy wax jigéen amatul valeur. Mm. ci réew xëy na ñoom xëy na ñoom loolu seen seen seen kii la seen seen wax la quoi. Mm. mais bu ñu nee jigéen amatul valeur loolu si impossible parce que juli jigéen moo leen sukk jur. Mm-hmm. loolu waruñ ko sax génne seen gémmuñ mel na ni tey su ma ko waxee mel na ni sama waaye yow am na loo xam ne kenn du ko wax aussi ah. am na loo xam ne mind moo koy travailler. Mm-hmm. ñi koy wax ñëpp ñu ay kii daal. mën na est-ce que nekkul xale jigéen léegi ñoo yombal vie bi quoi. peut parce que Mame Rane da koy wax ne loo amam jël léegi. <laughs> Mame Rane rey. Ah. <laughs> loolu la wax ne. tu xam nga la moo tax ñuy wax loolu parce que xale jigéen ñi joxaan yi ñu doxaan ñoo yomb si ñoom yaa ngi comprendre mhm. dañoo yomb si ñoom salaamaaleykum maaleykum salaam moo tax ñu ne jigéen amatul valeur yaa ngi mhm. affaire bi loolu la salaamaaleykum ma ne la salaamaaleykum tamit mhm. boo toogee ma toog boo taxee ma taxaw loo teg ma teggi nit nit rek la mën a doon wéesatoo nit xamatuma ci dara. parce que nit tamit boo tollee fenn fi war nga xam yow ki la bëgg ak ki la bañ. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. war nga xam ki la kiy wax dëgg ak ki lay fowee. Mhm. boo ko xamee rek doo sonn ci life bi. affaire bi lool la.